Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang na de. waaw coow li bëri na coow li na. ndax booy Niang dafa nekk ci yoon doon xale. bëgg prouvé. Balla Gaye na ba pare. Balla Gaye li mu def ci lamb yëpp def na ko. ah li ko des nag mooy expérience am lay bëre ak booy Niang. Boy ñaa moom it fukki de jeunesse am la yor. it bëgg naa yegg fi Balla Gaye yegg. loolu moo tax combat bi moom final lay doon. mais yéen minute de. ah léegi nag xam naa ko ci. Balla Gaye ku ko xam xam na du taxaw bu arbitre day dox sa kaw te Boy Niang loolu moo ko arrangé day reculer di xeex waaw loolu moo ko arrangé kon yaakaar naa combat bi du yàgg de du yàgg non non du fa yegg du fa yegg du fa yegg du fa yegg sax parce que loolu Balla Gaye sax du bëgg loolu waaw du fa yegg merci waay